asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ci waajtaayu bisu xaside yi ñu amoon bis boo xamante ni dañ ko wooteel maam Cheikh Ibrahima Fall bisub kalimatul xaq bisub laa ilaha illallah ngir waajalee ko bisu xaside yi war a doon ajjuma ji jiitu bisu xaside bi muy ajjuma 27 incha allah ci sàkku teewaayu Baye Fall yëpp teewaayu taalibe yëpp waaye kuréelu bàyyi Fall yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi tey maanaam dëndal liggéeyu Cheikh Ibra ci dëkk bi ñu ngi leen ci woo bàyyiwuñ kenn kuréelu làmp yëpp ñu ngi leen ci woo bàyyiwuñ kenn di ñaan sëriñ bi bis bii nga xamante moom lañ dëgmal te ku waajee ci Cheikh Ibra xam ne maanaam yaa ngi ci waajtaay yi bàyyiwuñ ci kenn ñu ngi leen ci wow bu baax di ñaan sëriñ bi defal ñu ci tawféex ba ñu weesu ko ak jàmm ci barkeb Cheikhul Khadim barkeb laa ilaha illallah muhammadu rasulullah jërë ngeen